bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm njombe la am kawteef lu ci mënti am daal mbir mi doy na waar ab takk der buy wuyoo ci turu Mame Sémou Diouf moom moo jël fetelam teg ko ca booba dal di sox googule sox moom moo ko yóbbaale sit xafaar moom takk der bi di Mame Sémou ma nga doon liggéeyee ca bureau des passeports moom nag daanaka dafa xaru ndax fetel gam doon liggéeyee moom la jëfandikoo ba muy fàtt boppam moom Mame Sémou Diouf ab célibataire la woon ma nga juddoo foofu le ca jaaxo siin féete ko ca région bu Fatick ay xamee la mu ñu ngi ko nataale boole ci nit koo xamante ne nii ku mënoon liggéeyam la te bëgg la muy def bu ñu sukkandikoo ci journal yéenekaay bi di l'observateur Mamsemou Diouf policier bi faatu wala boog ma ne policier bi xaru ma nga bokkoon ca promotion bu l'armée nationale ba mu jógee ko foofu ca la bokk ca deuxième promotion auxiliaire détaché de la police atum 2005 ca la bokk ca kuréelu limier ginnaaw si nga xamante ne jotoon na am ndam ci concours police ba mu defoon xëyam yu njëkk ma nga ko defee ca GMI e laata muy dugg ca biir direction de la police de l'air et des frontières ci leeral mooy woy takk der yi nga xamante ni ñoom ñooy saytu jaww ji ak di sàmm kaaraange jëm ci diggante dëkk bi ci yemu waayam ak yeneen dëkk yi ba mu yegsee ca googulee kuréel takk der ca la ñu ko yóbbu ca poste de police bu kaarang ginnaaw ga ñu yóbbu ko ca l'aéroport ba ba mu fa noppee nag ca lañ ko affecté ca direction de la police des étrangers et des titres de voyage maanaam këru njiitu takk der yi nga xamante ni nii ñooy saytu wàllum tukki dugg ak génn ci biir réew mi ci kawam waaye du tee ñu samp ay laaj ndem ki dem nettaliwul xew-xew bi ndax daañu amal ab lanket guy wane dëgg dëgg ne waa ji dafa xaru ak itam bu dee looloo am ana lan moo waral mu def ko Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal